asalaamaaleykum mbokk internet yi seen émission bi ngeen doon xaar yegg si na fii ci bitim réew TV ngeen àndax seen soppee seen xarit seen doom nday Colzère Adja la diva xale bi saf ñëpp ci jamono. ñëwoon nag Tëngéej fii seet si un jeune talent jeune talent boo xamante ne xamee nañ ko ràññee ko fii ci Tëngéej ah muy Pape Dieng waaw muy xale ndaanaan piir piir piir ma bëgg nag ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax a baax fépp jeune talent nekk dinaa ko wax si seet si ko fësal ko ci biir boxam salaamaaleykum Pape sama gox sama xarit. Adja sama xarit yow xam nga ne boo ma seet see damay sawar vraiment pour. lang ak yow donc di wax alaykum nak ñi ngi seetaan Wa waa Sénégal alaykum wa bitim rew ma ngi ñepp ñëpp man Dieng sala ma ngi di cheikh Baye Fall bi waaw pap jeng contane na trop ce nuyo def na nice machallah euh di ñëwaat rek di di jël sama micro di la ko joxaat di la wax na yow kan moy pap jeng waaw bon aja lolu bo mo ko laajee dama ci sama tontu pap moy doomu Cendele Dieng doomu Malène Dieng hein di jarbatou mbay Dieng artiste international et donc ma juddoo nag ci keur go xamné ay ndaanaan ñu fa dëkk ma ñëw gën a tuuti seen biir di fessel sama ndaanaan man buma wayulé woyulee damay tooñ donc vraiment maa ngi wax ni man pap Dieng artiste rufiscoise jeune talent le petit prince de Rufisque maa ngi nii et vraiment content nag bu baax ci seese gi ma seese tey ndax xam naa ni fans yi namoon nañ lii et donc vraiment may kontaan bu baax bu ci kanamee tuuti dina gën a yëngu. ah loolu def na neex macha allah mais tamit damaa dugg sa biir gox ma laajte. manam xam nga ndaanaan mu juddo ci koñ di ram nank par nànk macha allah ma duggu ci say am di jamm say xarit say soppe man dal mën len way yeen ma ngi ñu dégg ngeen nan pa pa pa mais amna ci ñi ma kat ah bo démé nak ma waxal tel ma question bi ne ma boo demee nga tel ma ñu ne la mo ta pap jëng bari titer waxuma ko dé waaw mais aja eh, ar lañ wax. ah un damay wax ni donte Baye Fall laa mhm. waaye buñ jógee ci cadre liggéey bi dinaa ci loolu mooy tax nit ñi parce que dama lay wax benn affaire bu important ci artiste tey jii ni ñi ñëw sa soirée am na koo xam ne sa way moo ko indi mhm. am na koo xam ne sa sañse moo ko indi mhm. am na koo xam ne sa démarche yi maanaam say kii ay jeunes lañ dañuy def donc nag vraiment la laaj loolu ah, xam nga man xam nga ñun ñoom dañoo sob fu ne dañ fay dugg di lijjanti Pape Dieng te avant ñoo ñëw nag laaj nañ lu bari bari bari mais foofu tollooguñu fax mhm. dañuy raam nànk par nànk rek fas yéene wax a yow. Euh, ma ñëwaat rek euh, Pape euh, di la wax na yow tamit maanaam woy bi danga nga jaax pax école wala ndono la Ouais, bon moi, li ma la tout à l'heure c'est-à-dire dama ñëw bokk ci kër goo xam ne ñëpp ay ndaanaan lañ man ma ñëw ne pourquoi pas ma way sama maam waykat la sama maam daa way bañ may ko ay gileem. Ah? waaw kon man mi setam ñëw su way woyalee ñu togn ah lo deug la pap lool mom deug la. fofu la fofu la fofu la pap Pape Dieng euh mhm. eh, deug yalla nak nek star. Ah? star Tëngéej star men yo pap yo star fi ci tengeet yo nek star u tengeet dañ bëgg jël musique bi parce que tay dëkk bo dé am nañu jeune au passage mooy nuyu artiste yi mag fi nek ci si mel ni Mbaye Dieng ku si mel ni sama badja ci melni gor gui Gorgui ci melni mam mel sak sama xarit xam nga voilà légui nak ñun jeune yi ñoo ñoo jël liñ mom

kina nag wóolu na boppam Pape Dieng wóolu na bopp wóolu nga sa rek di la na Pape Dieng sisa maanaam sisa sa carrière gina yaa ay single wala. question bu ma neex laaj nga ko génne single ma way ci takal mu génn neex allah ma masih ma si

moo tax clip bi génnewul mais en même temps ñi ngi waajal ay soirée ñi ngi waajal ngoon go xamné mama maman Dieng yi. Ah? barki Serigne Salim ñu koy fi te Tëngéej. voilà juste rek pour wax ne la ñi ci projet yi ñi ci projet yi xana fii ak peu de temps rek information yi na jàll ah papa lo neex nak mais nag su ma sañoon papa ba yang yëngatuwuma te dama sentir yëngu bu baax a baax te bu ma yow yaa ma mën a yëngal dama bëgg nga may benn bu neex neex neex ndax ci sa mbokku artistes yi sentir la bu sa si toog di la bëggee ñoom ñëpp si seen bopp bu baax baax donc may ma benn acapella ma xool pap yow foo toj. xanaa ma wayal la si single bi rek li ñu génn. si sama aja Urunin pembawaan Simpapa sadarnya Gun ke taulo Muhammadu Musafa Gun ke jablo Murtada maki Kukumu sadarnya Semua koi yoi Bamu yakulon Simpapa khadimul khadim Kukumu sadarnya Terima kon waxal ba ma sëñ bamba sagal jaam yi di jëkki di jëkki di jëkki sëñ wa ah papa yi fi neex na ma sha allah sa acapella bi neex na trop gëm na ni li mom bés bu génnee dina def buzz ma sha allah ta yalla dina la ci may ndam ci di may yaaka ci kàntinu borom lañ mhm. ay taalibe lañ ah eh, suñu sëriñ nak ñu way ko way bu doy war way wi ni ne ko gaay xaar way bu garaaw incha bu sobe yalla papa ba tey doylu ma ci yow eh, di la wax rek manam yow sa carrière ya, fo ci tol waaw Adja bon carrière bi xam nga amna début mais amul fin mhm. hmm? ñu ngi ci bu baax sax comme li ma la waxoon tout à l'heure ñu ngi waajal ay projet yo xamne nañ ko xaar du ma ne Tëngéej ay dama na Sénégal ak Europe nañ xaar loolu man Dieng Sala incha allah bientôt ñu gis lu garaw barki maam Cheikh Rafal. incha allah bu neexee yàlla papa di la wax rek maanaam comme waa Tëngéej tey jii seen mariage yi ñu fi def fii wala takk yi wala yooyu ndax ñu la ci oo yaa ngi ciy yëngu di ci sa bopp bu baax. waaw bon mariage yi ñu ngi tëgg ay mariage eh, semaine bi passée rek tëgg nañ mariage voilà dañuy tëgg mariage Tëngéej Dakar fu ñu waay woo dañ lay teggal mariage mais eh, papa ñaata ngay tëggee mariage yow xam nga dama am sama ben rak bu jigen bo xamna tay ji bëss buñ koy xewal tay ah ak ay moromam moromam ñu bëgg xam papa jeng bëgg tay buñ leñu langal ñu o oh, papa nga ñëw defaral leen donc yow ñaata ngay wax fofu ñaata nga leñu laaj ah? man may man may promotionnaire manam damay def promo xale yi jigéen ñi maa far xam nga toogoon naa ben émission man leen ma xale yi jigéen ñi secret la barki mam Cheikh Rafal la yow xal ñëw leen man maa leen di tëggal te du ma leen laaj dara yéen gérer leen sonorisation woo ma ma ñëw tëggal leen seen xew xanaa dëgg nit ah, loolu neex na xale jigéen ñi képp ci xew ñëwal daagu nànk ñëw ba kër papa jëm fëgg mu tijjil la muy soirée ak lu mu mën di doon dana daagu def jëfi ndaanaan pire ànd ak délégation bi defal bu ko defee say fan say xarit say soppe ñëpp kontaan ba tey doyalu ma di ñëwaat si l' enfant chéri de Rufisque di maam góor Diazaka ah il faut ma yëngal la <laughs> papa il faut ma yëngal la mhm. parce que ñooñu say grand frère lañ ñun jiitu la ci aar bi yàgg fi loolu yow mi di la fëndale rek di la laajaat tamit aussi ndax ñooñu tey seen carrière fi ñu toll yow bes dina ñew yow nga dem ba rombalen papa wow aja man ma la ko wax ah. d'ici 2 ans na bok ci les ténors ténors de la musique sénégalaise inshallah inshallah man ah. ma la ko wax té li ma la wax wour la ko ma la wax lolu papa wolu nga sa bop dé ku yott du sa xet jappal lolu ma la wax papa néna kuyot ku yott du sa xet nañ ko may fex ñaari at inshallah di ngeen dégg ci moom lu raw njottam incha allah ci kàntanu borom bi yàlla mën na ko yàlla na la ko yàlla defal di wax na rek papa ba tey damay ñëwaat ak yow maanaam papa tey boo demee ba partout dans le monde ñëpp xam la ah, nga nga doon star ci biir star yi papa est-ce que doo xeeb waate ngeej parce que nag gis nañ ko fii <laughs> waaw dañ ne ko fàttala la fal li lay folli day yomb te ngeej rek laa fii laa juddoo jamais je Dakar, je Dakar et jamais ou plus jamais je suis sama Je ma je ne là. Je te dañ suis suis en soutenir ma. suis mhm. je tisse bois parce que je suis nekk sen sen sen sen, seen Je suis mhm. parce que artiste aussi da ngay

te tey jii Sénégal képp ku ñu fa tudd ñu xamé la ràññee la jigéen nañu jur macha allah kon nak yàlla nañu Yalla jappalé bu baaxa baaxa baax di waxat rek papa ndax yow yaa ngi tëgg ay soirée bonne question maa ngi tëgg ay soirée euh, vraiment mais instant yi ñu toll nii manager dana nañu arrêté concentré wu studio moo tax nag bi ñu quelque temps ñu né non d'ici avril dinañ may soit xawaare yoo xawaare xam ne samay maman yi jëng saala aussi mel ni maman munaas kooku kooku sama yaay sama xarit est-ce que xam nga sa émission bi ñëpp a koy seetaan ci àdduna kooku sama maman la su may wax ci moom damay bëgg a way koo hmm? Hmm? Ah, taal taal taal taala masar joob si siise ku ma ma woola borom xolu jamaa bi ne ma naa ma woola <laughs> dalay sa baay yaa si mooy sa yaay juba juba fa ma woola sa bapp mooy premier maire de Louga sama yaay ji loo bokkook rama loo bokkook mama di si sama yaay ji dundal ba say may di baawaan sama yaay ji mbokkum ndeyu Xadija ma woon taala taala taala taala ma sarjoom sin siisi kuma ndaw sa ma woola borom xolu jamaa bi ne ma naa ma ah, papa macha allah fu mu ne nii sama yaram loolu neex na macha allah ki nga kooku sa yaay la li nga ko bàkkee neex na torop moo ci mën ah? lu may def Dakar moo ci mën di day day dindi xaalis bu takku tekk sama loxo nga ma doom demal da nga cee toll hmm? et eh, yaayu ndey si doomu yaay Khadija mbokkum ndeyu Rama Rama Kër Mbay Fall ñooñu samay maman lañ ñom ñoo ne ma carrément dañ na ma xawaare biir Tëngéej ñu ñew jugee Dakar ñew yak Tëngéej moo tax loolu bientôt dina ñew inshallah inshallah mm-hmm. incha allah loolu moom bientôt papa néna na ngeen xaar ko euh di ñëwaat rek papa di la wax né est-ce que yow. Mm-hmm. yaa ngi rêve un bon jour mm-hmm. nga tëgg grand théâtre comme say moroomi naw la niñ ko fay defee mu fay fessé wa Tëngéej ja fekk si la yaa ngi rêve loolu wala. waaw <laughs> mais bien sûr parce que suñu morom rek ñoo fi tëgg muy fess man xale yi jigéen ñi mën nañ lu ne ci man maa la wax loolu te mag yéen dañuy dem grand théâtre bu fa jugee dem tournée. ah loolu dara fay ko macha allah ma ñëwaat papa di la wax maanaam yow aax bi nga nekk nii euh, nga gis lu mel ne ay ñam yu suñ nduur ay ñam con sekk ah muy artistes yu mag yooyu. yow tey boo doon royukaay ci kan ngay. waaw ñoom ñëpp samay référence lañ ñoom Eh, papa Youssou Ndour kenn du moom Wally Ballago sek Seck mariage Meysa bii ñëw tamit gën a gëmloo jeunesse bi seen bopp kon donc ñoom ñëpp samay samay idole lañu waaye mention spéciale papa yu Wally ah loolu na ma ne kese loolu na macha allah euh, ma ñëwaat rek ma daaguwaat ci biir koñ bi ñu ma papa Jing defo bëgg yaayam ñu ma papa defo bëgg yaayam ci biir xolam. manam yow amur gongga nga am sa yaay euh lan nga ko fasiyene defal ëllëg bés bo demee ba yalla defal la ma sha allah. Adja émission ba ngi bëgg neex xam la man ça fait l'occasion mo gitar la suma jaajaax gitaar gi ma jëk jé sama yaay moko jënd hmm? waaye dafa romb gitaar ko taxawal tankal porte mu dem génné

jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee single bi ma njëkk a génne moo ko njëkk a déglu bu déggee ñu teg ko rajo dafa may woo téléphone allo ma ne ko yu mënuma jàppal rajo nangam sa way bi lañ teg xam nga loolu dafa riche. su wetu woon naa ñu fekkis lépp. Wah mais maa ngi koy ñaanal papa fu mu jëm dana ko gënal fi mu jógee. di wax na rek képp ko xam ne bëgg na yaayam bëgg fas yéene teral yaayam sa yaay ñaanal la yow da ngay dem papa day dem kenn du la téye allah di wax na rek papa yow. depuis bi nga si ci carrière bi ba léegi ndax lo manam, amu ñu commencé di la gargal xam nga aar dafa papa surtout maa nga jeune. Masya allah commencé la bëggandoo ndax eh, lu ci melni ay ma ah, am xam ya, ay ñooñu nonu commencé mo tag tànk yi naan pat nank wolé wa bon ko ya? ah, Wow, am lu ci yaar. wow waaw. déedéet la ah xana di wax rek sa bu xëyee mairie ñaanal la. Hmm? waaw deug aussi di di di ñaanal aussi ñi nga xamni dañ ñaanal te xamuñ ñu man. Mhm tamit ma <laughs> yaakaar ay kilifa li ma dañ lay ñaanal tamit rëy trop. kon ñooñu ñuy def loolu bàyyi rek ñoom lu ñëw dal si man. yàlla baax ku yaayam ñaanal wax dëgg yàlla yow da ngay dem kenn du la comme ko euh, di rek lan yow Papa Dieng ndax mas nga dund trahison. trahison ci lan. trahison dafa bari façon manam ci walu mbeugel ci walu nga am xarit ngeen don and mu trahir la bon non non man gars yi may àndal yëpp boo xoolee pratiquement su may su may andi daaw ñooy samay àndu ren donte temps bi mayatuñ ko mais fii laa leen def sama xol damay jékki-jékki dimanche seeti leen Ya ak ay nit yu baax waaw ah, vraiment ah sentir gu ko bëgguma ko si sama. ci walu mbëggeel nak yow nak <laughs> ah mbëggeel nak ñëpp jaar ci trahison papa. mbëggeel uh-huh. man aja si man xalé yi nenañ nañ bu ma bëgg kenn. xale yi jigéen yi ah ñoo may jàppale. nee bu ma bëgg kenn. Ya, papa ak ni nga ciofé ñi def jantal Mara. xalé yi tangé di la wër papa nga naan yow dundo trahison non papa lo gomo ko. ah dundo ma dundo gomo de. pour l'instant dundagoo. non non non. donc nañ bay nonu papa néna dundo gul eh, trahison di wax nak dama bëgg nak si single bi nga ñëw ñu waxtaan ci bu baaxa baaxa papa. Wow single bi yow masya allah da nga dégg single bi takkal laa ci way xalé yi dañu wara gaay gars yi dañu war a takk yi bëgg nañ sey de ak ñu bëgg sey wallahi na gaay dem tak ci xalé yi. jigéen ñi tamit dañoo bari papa ci biir réew mi. mais mais Adja li ñu bari bari bari bari bari Gay mëna mën na leen jël gars yi li ñuy ragal nañ tak ci xalé yi xalé dañu bëgg sey

man ci côté texte su ma ménagère sama ginnaaw xam na li may wax ñun yor nañ ay album teg actuellement son boobu ñu koy enregistré studio dama dem gars yi ma lan ngay way man xam ne moo fi nekkee di génne morceau yi mooy loolu man la leen dañ joué di ñu joué ma way répété wuñu ko amul répétition maa way génn lépp comprendre voilà ça vient naturellement waaw parce que tamit nag loo nekkul daanaa lu ne bàyyi ko

yakamti loolu lo papa daal di génn clip am ya- ñu tok seetaan la yagul ah si sa Adja hmm. yàggul bientôt dinañ jot ay nouvelle yu graw inshallah ci pap Dieng inshallah papa nee di ngeen ko séentu léegi léegi yagatul di wax rek euh, papa wa bitim rev TV nan nga ñu gisé waaye yéen moom mention spéciale yéen itam dañ ko tek ci temps c'est normal parce que ay jeunes génn adduna bi léegi ay jeunes yi ko yor vraiment. wa mais nak papa ba tey su ma nga àgg paala nga ci club bi manam club bi nga may ma ci astour sànni rek eh, eh, ah waaw. Eh, li ma dal ba nurutuma nit. ndeke mbëggeel rek la. jaaxal na suñu waa kër dama ko bëgg jox ko sama xol moom mu may misère lool. ajaa xam nga bëggee dafa neex lool suñu la bëggee da koy xam xam nga bëggee dafa neex lool suñu la bëggee da koy yëg dégg naa lu koy wax. ah papa instant yi kontaan papa yàlla ya xam na vraiment di wax rek nga nuyoo ak say soppe ak say am bi sa fan say toog di fas xaar say say say bax bax bu waaw bon kontaan naa Euh, c'est allah une ma ñu ka def émission bu nice je vais nak duma te Adja bi may gëna nek xalé <laughs> Adja man daal ay une semaine jours man mois lay ma bon pas bi attends professeur bi ñëw kër ga waaye yow attends papa yow boo masoon tàggu jàng jàngi école jàng yow papa gàddu saak fan ngay dem moom ma jaaxal ñëpp ajaa daal xam ni maire yi dëkk fii ci ginnaaw eh. war naa kenn ku 5000 la seen ginaar nañ ko aja eh. ñun kat lañu woon ñoo gëna a ës classe bi ku nekk da yor sa saak ki moy fit ki moy rendi yooyu laa bëgg nga findal leen rek ma xam ma war da xam nga. am nañ soxna waaye may doom. papa papa <laughs> souvenir la waxal leen. dégg nga uh-huh. moo tax jeunesse. gis nga kër gañ daan lakkee affaire yi kër ga léegi château la. wallahi lazim te batiment la bu parewul woon fa lañ daan le man daal suñu waa kër dañ daan gis may am yaram ñoom it lijjantiwuñu kii lu muy def bay am yaram ganaar yi rek maire yi moom amee naa leen ak <laughs> papa di wax rek machallah fi mom euh, affaire bi la trop di wax rek nga say voilà di du ci di si machallah Adja di contane ci cameraman comprendre et di wax ni hein, c'est pas la première mhm. et donc ci te ndax yéen xam naa ne ci baax baax ngeen di dox. waaw bu baax sax te man jeng Dieng la si baax baax lay ah, dox. ah kon gis nga. ok kon donc kontaan naa di jox ñëpp rendez-vous. yàggatul xam naa bientôt. di leen wax nag Paa gi ñëw ak album ak ay clip jàppale leen seen doom amul lu dul Tëngéej Tëngéej moo ko ñor Tëngéej mooy base mooy fierté jàppale leen seen doom encore une fois di au autorité yi ne ñoom jàpp ci jeune talent yi dëkk boo dem amna lutte vocale yu fa nekk yoo xam ne lañ pourquoi pas fi amu fi tënkee comprendre nga mais dañ soxla jeunes yi est-ce que comprendre donc ma ngi woo ñëpp Adja di kontaan si invitation bi du nuyu ñep ménager ci ginnaaw ma ngi koy ziar di ko jox wayam di kontaan si. waaw papa dama bëggoon rek nga jël sa numéro wax say fan si ndax ñu xam ko. bon numéro bi c'est 77 276 et 29 87. 77 276 29 87. ok donc euh, fam ci papa yi ku ci bëgg jot papa machallah numéro bi mu wax ni boko ko rek jot ko boko jotul jot ménagère machallah ma maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñep ma ngi nuyu sama yaay ajaratu Fassine sama papa sama frère sama sœur bàyyiwuma kenn samay xarit samay am di jàmm képp kuy béggee Sister Adja biju naa mooy loolu di nuyu samay caméraman bàyyiwuma kenn di wax na rek euh, nañ dig daje beneen yoon incha allah boobooy dàq merci beaucoup. ñu la ñuy bëgg xëy dem ba ma bëgg naa

ndeysaan ndeysaan